qui di euh, Thierno Alassane Sall ngeen euh, nekkandoo euh, ci conférence des leaders am na benn livre bu mu xaatim jamono yi ñu génn le protocole de l'Élysée loolu est-ce que lire le livre bi d'abord. gis nga man lire naa lire nga lépp lire naa lire naa lépp lan la lay inspiré. benn am na solo homme politique mm-hmm. di bind.

ñu ngi koy jëf ci tooñ ak naxaate ñu war ko xamal askan wi te loolu téere moo ko mën waaye li ma ci gën bu fekkee ne lenn rek laa ci war a tey ci ci téere bi moo di ne ñaar fukki at ak lu ko ëpp tuuti mën a jëm ci fanweeri at njiitu senegal yi ñu ngi yàq Sénégal te loolu askan wi war nañ ko xam ci kaw lan mhm. ci kaw doxal politique bu bon bi ma la doon wax sànq muy lan muy politique boo xam ne dafa jiital njëriñu ñi nga dënk sa réew donc livre mais livre bi li li tax ñu koy ŋàññ lu ñu bëri li tax ñu koy ŋàññ euh, lan moo tax mu toog ba moment bi di génn yu yu ni mel te moom mu ngi woon peut-être ci nguur gi depuis quelque temps nekkoon na ci ay jamono amul lu bari loo xamante ni waxoon na ko ci wala fësaloon na ko ci yow yan yan point nga jàpp ni ci livre bi euh, yooyu peut moom moo nasaxal lii di euh, peut-être mais mais gis nga ma ma wax la ci dara mm-hmm. man bind naa téere xam nga ci téere boobu li ma ci bind am na loo xam ne ni bind naa ko ci mm-hmm. dama ne maa ngir rëccu xëy na li ma mësata def politique ndax boobu defu woon politique mm-hmm. ndax boo toogeek ñu mel ni Thierno Alassane Sall moom laa tudd ma ne boo toogee ak ñu mel ni Thierno Alassane Sall di nga xam ne politik mun na ànd ak jub politique mën na ànd ak jiital sa réew ma tegal la ci leneen am na benn dossier du ma du ma ko tudd waaye moom sax dikk na ci ci téere bi waaye du ma wax dara man ak Thierno Alassane Sall ñoo ci àndoon dane lii mënut a ne waaye kilifa bi bëgg loolu. yéen ñaar ngeen teg ci seen tànk. ñu jéem ndax. mënuñu mooy kilifa gi voilà dañuy jéem. ne mhm. non bu warut a ne ndax lii ndax lii ndax lii. Mhm. mujj ji ba xam ne bu ñu ci dëgëree Cerno dina fa jógee mhm. dinaa la ko wax tey maa oo Cerno Alassane sal ci sama bureau.

doxal dara waaye bu fekkee ne lu ñëw ñu dëgër këj dañuy daal di dem bàyyi leen lépp yàqu xam nga lu ma Thierno Alassane Sall tontu mu ne ma monsieur le premier ministre du ma ko signé ma ne non waxuma la nga bañ a signé nga nga signé contrat bi waaye signé loo xam ne keneen dina ko signé mu ne defuma ko ma ne ko gën naa la naw waaye nag da ngay toog xeex bëgg àgg foo xam ne yaakaar nga ne mën nga fa dimbale sa sa réew bu fekkee ne saayu yu lu tuuti génnee rek nga war a gedd dem sa yoon kan ngay mën a jëf dara